ci beneen actualité itam du ñàkk ngis nañu li nga xamante ni moom moo di rek bésu korité bi euh, ñu gis euh, imam bu grande mosquée euh, daal di julli ba noppi def xutba waaye xutba bi nga xamante ni doon na ko amal mu yëkkati woon ci nag ay kàddu ñenn ci ay ci ay jeunes comme ni ñu ko mën a waxee dal ci kawam parce que nee nañ kàddu yi nga xamante ni daf ko wax tegu ko fenn te itam loole yàlla suñu borom waxu ko fenn ginnaaw bi mu ne képp ku nga xamante ni ñàkk nga sa bakkan ci manifestation da ngaa xaru bi mhm. jàpp naan ne day grande mosquée matul grande mosquée bu sunu bés bii di Masalik boobu rek mooy grande mosquée moom. Mm-hmm. waaw man foofu laa jàpp ne mooy grande mosquée ndax jàkka jooju dañ ko def te yàlla rek tax. Mm-hmm. jàkka jooju dañ ko def ngir jaamu fa yàlla rek sàkkuwuñ ci ndimbal laaju ñu 1000 francs laaju ñu 500 beneen bi. grand sëriñ de Dakar day la sëñ boobu waxoon rek grand sëriñ de Dakar matul grand sëriñ grand nga fii ci Touba mm-hmm. loolu moo ñu dal. mooy imaam bi tamit matul imaam. Hmm. waaw ndax imaam dafa am nooy doxe imaam bu président toogee sax bu mu la teree wax say dëgg. xam nga imaam mënul weesu maanaam ñàkk nekk imaam mënul weesu wala naan feeq mënul weesu nga toog jàkkaaroo sénégalais ñu bëri di la déglu di la bàyyi xel président toog ak i ministre am nga ni ndaw ñi lii ñuy def ku ci dee safara nga jëm hmm. fan la ko yàlla bind hmm. ah? ñii di manifester wu ngir seen réew am jàmm. ñii di gis lu leen naqari seen réew ñu génn di ko di ko ñaxtu président bi arrêté ñu arrêté leen ne ma ñaxtu du fi am. ñuy génn di wane seen naqar nga ne ko fi dee safara nga jëm. moom de bu doon maay moom jour boobu laay dindi imam bi jox ko keneen. waaw. mais lii lu ko fi jar ndax kàddu yi mu wax. nga am njaboot ñu lay saaga ci internet beet di la wax wax yu ñàkk fayda ndax kàddu yoo xam ne waroo ko woon yëkkati ndax alal. imaam imaam dëgg-dëgg du ëppal. gis nga gars yi bu ñu fonte ji ay lëfër lëfër dem jàng ñaari isib ñëw fii imaam déedéet déedéet imaam dëgg du ëppal. kii ku ko déglu sax ni muy waxee nga xam daa ëppal. teewit teewit di naan maa ngi sàkku 1000 francs gouvernement bi sax yéen seen wàll na ñëw loolu kilifa du ko def. kii loolu daf koy wax non non non non waru ko wax ko wax. imaam warut a wax yooyu xam ko ko war a wax. kii nodd kii nodd moom bu noddee ba imam xubba ba pare ba def lépp moo war a jël kàddu gi ñu ngi sàkku mbooloo mi ku ci mën a joxe 1000 francs pour nangama nangama nangam mais pas imam di wax loolu imam dafa war a am personnalité ci boppam mm-hmm. Mm-hmm. bul xàmmee buur bu toog ak président bu toog dëgg li yàlla wax ci alxuraan addis yonent bi wax ko ci addisam toog ko wax ko waa jàkka ji ñu jëlee ci njariñ mm-hmm. mais du ay xeexat li xew ci kii yooyu ci la ñuy jëlee njariñ déedéet yow waxoo ci waxoo ci tekkiwuñ dara. ñan ñooy sëkk tubéy. Eh, ñi nga xam ne tekkiwuñ dara borom sikkim yooyu gudd yooyu. ñan la fenkat yooyu nuñ tudd. ñan si damay xamul nuñ tudd waay. Mhm, boo ko xamee rek bi laa xamu seen tur. Mhm. ah gis naa kenn ki nag mu naan julli ci géej gi amut. ibaadu bi. Mhm. mu ni julli ci géej gi amut. moom day kon yonent bi nga xam ne ki nga xam ne maanaam jën du ko lekkoon xanaa loolu amut. Mm. ah fekkee wu ko baayam fekkee wu ko maamam fekkee ko de addis la da koo dégg rek. te na ko ki nga xam ne da doon dem bi mhm. waxtu julli dab ko mu jël oto jaarale ko ci biir géej gi mhm. dem dugg Gàmbi loolu am na wala amut am na loolu lan la kiraama te sëñ Tuubaa dañu kiraamatu hadiya di ah mhm. sama sama géej maanaam sama xaside yi ñooy sama kiraama sëñ Tuubaa nee na moom julli géej gi gaayee ko def muy kiraama rek moom sëñ Tuubaa def ko kiraama xasidaam yi mooy kiraamam yow nga toog fee tekki woo dara sa tuba yu cëkk ah naar fekk toog toog teg seenu table ñetti nit wër la ngay fen naan gis naa weer wi fan. fu mu tudd jam ñaajo la waxatee. xaw ma maas mu tudd fi gis weer wi. ndax du yëmbal. non jàpp waa ay yëmbalat gis naa ko taata gi nat gis naa ko puut. Mm. ah yooyu yi naar fekk yooyu sëñ bi ñii ñooy tas réew mi ñii duñu ay jullit. jullit dëgg dëgg dëgg day xool li yonent bi ah, teg déedéet mënoo nekk jullit comme yonent bi bañ sëñ Tuubaa mënoo nekk jullit gëm yonent bi bañ maam Alaaji Maalik duñ ay jullit ñoom seen diine dafa des lu bëree bëri bëri matuñu sax diine mhm. seen tuba yu cëkk yooyu ñuy saf ay nga xam ne na ma yàlla jégal ay borom ñaari turi sax ñoo ci mm. waaw mm. nga wax ëpp moo ni julli ci géej gi amul loolu la wax mu ni seen julli ci géej gi amul moo tax nga koy attaqué <laughs> fii gis nañ fi ay nit yuy jën lekk ah. te dañoo génnaat loolu am na wala amul. ñu leer ay yonent am nañ fi kiraama ba taay taf ñoo ñu fekkee wu seen te da leen a gëm. Mhm. waaye léegi julli ci géej gi sëñ Tuubaa dem ci at ngëm-ngëmam sunu borom. Mhm. mu ne amut imaam bi may wax xam na boppam. Mhm. borom ñaari tur la. te bu ngeen ñëwee ma génne leen preuve yi wane na ko borom ñaari tur laat ci kaayam. ay preuve nga maa la wax loolu. yu mel nan na génn wax na génn wax waxa sëñ Tuubaa du kii ma génne preuve yi. nga génne ko na génn wax ne si ci géej gi amut. preuve yu nan dafa toog ci lal dafa. Eh, na julli wax ni julli ci géej gi amut. <laughs> kii bu gàtt boobu. d'accord ayca ñu ñu avancé ñu. ay ay ay Iba xaw ma Ibaadu xaw ma Rahman. mais Ibaadu Rahman lañu. gis nga gis nga waa Jamra ñoom it seen liggéey defuñu ko xam lu tax defuñu seen liggéey. waa Jamra waxuñu ne mënuñoo nekk fii ne ñoom affaire diine yi lañ nekk di kii diine ji. Mhm. ay doomeraam nekk fee di critiquer Sëñ Touba di critiquer maam El Hadj Malick comprendre nga yéen Jamra waxu leen ci di bàyyi noonu muy sedd ñu tekkiwul dara génn fii naan korite gi weer bi feeñ na weer bi feeñ na te teguñu ko ci benn benn benn kii Sénégal Sénégal la. mais ndax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo Sénégal Sénégal la makka makka la. Mhm. makkaat ñun bokkuñu xaalis seen dara bokkuñu. Mhm. seen heure bopp la ñu yor seen dëkk bopp la ñu yor ñun suñu réew bopp la ñu am. Mhm. comprendre nga fi may waxee France seen réew bopp la ñu am weer wi ku nekk mën naa feeñ ci sa coté waaw mais ñun Sénégal feeñut ci ñun gisuñu ko ñoom dañoo war a fay de parce que 19 jours la ñu woor te weer wi yàlla 30 la wax. 29 jours waaw 29 jours am nañ droit topp màkk ñu doon di. dëgg la bu doon loolu la ku nekk sa penku bi da nga mm-hmm. am déet. Mm-hmm. bu doon loolu la ñu bokk lépp. dëgg la bokkuñu màkkaat Sénégal bokkul bi. Mm-hmm. da ngay jël avion doo ko dem màkk. heure ba sax bokkul. mais ñoom ñoom la ñuy topp. màkk la ñuy topp ñoom ki ñuy topp sax ki ñuy topp sax gëmu leen. yeneen bi. gëmu leen sax te yow man xiyaam ngay xam ne ñuy tekkiwuñ dara mm. waaw foofu sori na eggaguñu fa ñu ñu tàggatoo wi ak ak ak beneen actualité ah, parce que gis nañu li nga xam Matar Gueye la xaw ma maam Matar Gueye yow laay waxal de yii da nga cee war a jóg mhm. iba ibaadu yi xaw ma le nga xam ne tekkiwuñ dara toog fii di critiquer seen Touba ah soo ko soo ko mënta lijjanti ñun mën nañ koo lijjanti ah ñun suñ te barke borom Touba ku ma ci gis ngay waxaat ci Serigne tubaa suñu diine yi di nga ko réccu di nga xam ne ñun suñu gëm-gëm dafa fort waaw mais ñun nga attaqué Mame Makhtar Gueye tey nga koy woowaat ci ci non dama ni daf ni daf ni de waxu attaqué wu ma ko dama ni moom nee na mooy Jamra day lijjanti diini jeet yooyu mhm. du loolu la ñuy def seetal jikko yeet yooyu mhm. waa léegi jikko yi dooméraam yi nekk fi di critiqué maam Alaaji Maalik Sëñ Tuubaa maam ñasat Baay ñasat ñooñu mhm. waa léegi ñoom duñ lijjanti loolu wax leen ñu réglé naam ñoom nañ gëm seen bopp yor seen diine bopp ah dañuy fexee sol lu jot dañ bàyyi caleçon yi ñuy sol wala ñuy tëmbal di ci sol ab toq ab jàllaabe yu jëkk ah. mais mais Cheikh Ahmed ñëw na dolleeku ci ci ci Mame Makhtar Gueye est-ce que est-ce que gisoo ni tey euh, peut-être mu am yenn ay changement xamante ni. kan la jam Cheikh Ahmed Cissé. non du ñooñu ñooy changé mais dolleeku nañ ci ci Jamra. est-ce que yàlla jàpp taxaw leen. Mhm. mais mais duggam ci biir Jamra ban ban jàngat nga ci def Cheikh Ahmed Cissé moom mi nga xamante ni dafa dafa bëgg ñu def ko ministre boo xam ne moom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu awra. non xam nga xam nga tamit loolu rek déjà moom li muy wax dëgg la tamit diine. xóot na diine dafa yaatu mais war ma Sénégal dafa am kàdd war ma boo xam ne moom lañ xas ba am jikko mm-hmm. boobu maanaam war ma bi mooy tey suñuy teggin mayuñu ñuy wax yenn kàddu yi mm-hmm. xam nañ ne diine nii la ko waxee boo ko dee topp da xam ne kii nii la ko waxee mais ñun suñu kàddu moo dem ba mel noonu xam nga saaga garaawul ci yeneen réew yi mm-hmm. ñun ñu ngi ni saaga dañ ko garaawal comme naa nga lu ñaaw nag ñun tamit dañ ko garaawal te comme maanaam bu doon maay moom nag kàddu yi mu defaraat ko dina am lu bari ci àddunaam waaw ah, bu doon may moom moom Cheikh Ahmed kàddu yi lay defaraat xam ne fii réew mi réew mu woor ma la <laughs> tey bu bëggee kilifa yi di ko seetaan parce que jàpp naa ne am na kilifa yoo xam ne sax duñ ko seetaan <laughs> ndax li muy wax bu bëggee kilifa yi di ko seetaan di ko bàyyi xel <laughs> tey it fu mu dem ci kilifa ñu ubbil ko bunt na seetaat kàddu waaw mën nga jàngale nag jàppale liggéey li liggéey du la yàqal du la wàññi am na solo mais dem mu dem ay jamraat ay yooyu jàpp naa ne ñoom am na ay kilifa yoo xam ne tey jii ay imaam yoo xam ne tey jii ay ay ay ay ay ustaas yoo xam ne tey jii dañ war a mën a jël indi leen biir Jamra ñu yee nit ñi. kon Cheikh Ahmed jàpp nga ne amul place biir Jamra. non dama ni waxuma amul place at Ouzin Keita am place <laughs> ak Cheikh Ahmed. dama ni fu ñooñu am place rek am na fa place nag. Mhm. wax yàlla moom sax moo lay ëpp xam-xamu am na fa place nag. ñu dem ci ci beneen actualité bi nga xamante